waxoon nañu ne attey sharia at-taklifiya juróom lañ indal jumhur waxoon nañ leen ni abu xanifata dafay tàqale farata ak waajib ni muy tàqale xaraam ak makruh bu ko defee atte yi ci axnaaf yi ñoom juróom-ñaar la doon te di gis benn ci anam yooyu yooyule ci suñu jàngatu xaram maanaa makruh ci ñoom dafa am makruh tahrimi alxaraamu lughatan al mamnuu lu xaraam wala xaraam ci lugha mooy luñ tere istilaahan al xaraamu maa naha <coughs> maa naha anhu shaariu ala wajhi al ilzaami bittarki ci listilaaxu xaraam mooy lu aji yoonal ji ki yàlla tere ci anam ak waraluk ba loo xam ni sharia dafa tere nga def ko sàkku ci yow sàkkuk waral ci nga bàyyi ko lu mel ni uququl walidayn dënge ñaari wayjur sharia daf ko tere terek waraluk ba sama boroom wax na ko wala taqul lahuma uff yonentu sallallahu alayhi wa sallam boole ko ci akbarul kabair attey lu xaram yuhaabu taarikuhu imtihaalan wa yastaxiqu alciqaaba faaciluhu soo bàyyee lu xaraam te topp suñ borom subhaanahu wa taala moo tax nga ba ko maanaam li ko suñ borom tere tax nga ba ko xamal ne sama borom dana la ci yool dana la ci fay soo jànkuwanteeg lu xaraam maanaa soo ko defee xeeyoo nga mbugalam borom bi yal nañ ci yàlla boole musal lu xaraam na danañ ko tuddee maxduuran maxduur mooy lu ñu wëttandiku walla lu ñu wëttandiku loo mamnuan danañ ko ko tuddee lu ñu tere danañ ko tuddee maasiya ak mooy danañ ko tuddee dëmb muy bàkkaar ibnul qayim rahmatullahi alayhi wax na ne bu ñu teree te leeral tere ga leerale ko baatu taxrim danañ ca xamee ne mbir ma lu xaraam la ni ki waxi yàlla jëm ne xurimat aleykumul maytatu xurrimat aleykum almaytatu ak xurrimat aleykum ummahatukum ñu xam ne lekk midd ak sëyeeg ndey ak ña topp ca ndey yépp ci laaya ja ca suratu nisa xaraam na walxawar walwaid ala alfiili yàlla su teree ba pare tëkku walla mu tudd jëf tëkku ko def dañ ca xamee ne jëf ja dafa xaraam ni ki innama yaakuluuna fi butunihim naara ñi nga xam ne dañuy lekk xalali yatim mu ne nañ xam ne safara la ñuy sol ci seen biir ak ñi nga xam ne dañuy jànkuwanteeg riba mu tëkku leen fa fa'danu bi xarbin min allahi wa rasulihi yàlla kum wax ne danaa xareeg yow war ngaa tiit wax na ci xadiisu qudsi yi ne man aada li waliyan faqad aadantuhu bil xarbi ku ma noono ku noonoo sama waliyu sama waliyu déclaré naa la guerre tëkku googu tax nañu xam ne noonoo waliyu dafa xaraam walla jëf ji ku ko def ak kafaara war ci yow ijaabul kafaarati bil fi'li yàlla nee na yàlla du leen jàppee law ci ngëñ waaye nag dana leen jàppee bi ma aqadtumu laymaana mu ne fa kafaaratu itaamu ashirati masakin lii wane ne ngëñ goo xam ne boroom daf ko def amul droit bañ def lam gëñ ndegam lu dagan la ndegam topp yàlla la lii wane ne boroom xaram na mu baña def lam waat ne dana ko def mooy fa kafaaratuhu itaamu asharati masakin ndax ba mu ko bàyyee waral nañ ko mu kafaara lu dut nag mu gëñoon loo xam ne xam na ne bàyyi gaa gën mu ba ko du tere yi dana kafaara nee na it lafdatu ma kaana lahum kada walam yakun lahum amuñu droit def lii waruñu woon a def lii ñeelut leen woon ñu def ko nee na bu ko shaariu tuddee it dafay wane ne jëf ja lu xaraam la wala xadd am ca jëf ja ki ku xas góor gu jigéen yàlla ne fajliduuhum hamaanina jëldëtë ñi nga xam ne dañuy xas way sangewu yu jigéen ñi te amuñu ca benn preuve mënuñoo indi ñeenti seede yu dëggal lañuy wax yàlla ne faj li du nañ leen caw ak wax ji wax ne aji njaaloo ju jigéen ak aji njaaloo ju góor ku nekk ci ñoom na ko caw téeméeri yar waaye loolu day fekk sangewuñu bu fekkee ñu sangewula nag atte ba gën na sévère loolu mën na nekk sax li ñoo tuddee li ñoo tuddee capital penalty maanaa su seddee ya taxawee su fekkee jëkkër nag moo tuumal jabar walla moo fekk jabar di def loolu te mënu ko prouver moom duñ ko wax ne ko wutil ñeenti seede dañ koy wax ne ko mën ngeen a rëbbu bu ñu rëbboowee say ba tas ak baatu laa yaxillu fu mu ñëw rek ñu xam ne lu xaraam la daganut ni ki waxi yonent jam wax ne laa yaxillu maalu mri'in muslimin illa bi tibin min nafsihi dafa tudd jullit rek ngir wane teraangaam waaye lim jublu mooy alal kumoo kumu du dagan mukk lu dul ci teeyu bakkanam lu dul nag ñu nekk ci jamono yi xarb loolu beneen situation la wala yàlla ne jëf ji xéwénut wala shaariu wax ko maanaam yàlla wala yonent bi ko wuutu sallallahu alayhi wa sallam mu jëf ji ni ak yàq la wala ne jëf ji taaraluk seytaane la wala mu ne jëfi seytaane la wala mu ne yàlla bëggut ko wallahu la yuhibbul fasad wa zayyana a sheytaanu amalahum yooyu yëpp li muy wane mooy jëf ji dafa wa annahu laa yardaahu li ibaadihi ni ki waxam jëm ne wala yarda li ibaadihi alkufra laa yarda subhanahu wa taala li ibaadihi alkufra mooy gërëmut ko yàlla nee na gërëmut kéeféer ñeel jaamam yi wala shaariu ñëw ne laa yuzakki faila hada alficli aw laa yukallimuhu aw laa yanduru ilayhi wala mu boole yooyu yëpp ni ko waxee ci laayaat yu bokkut laa yukallimuhum allahu yowma alqiyamati wala yanzuru ilayhim ak wala yuzakkihim ak yooyu yëpp yàlla du leen sellal du wax ak ñoom du leen xool nee na yooyu yëpp bu ko yàlla waxee ak yu mel noonu la muy firi mooy jëf ja dafa xaraam kon yooyu ñooy baat yi tegtale ne mbir xaraam na ni ko ibnu qayim rahmatullahi alayhi waxe léegi nag lu xaraam ñaari xaaj la am ñaari xaaju xaraam moo am xaraam li zaatihi ak xaraam li gayrihi alxaraamu li zaatihi huwa ma xakama alchaariu bi taxrimihi ibtidaa mooy loo xam ne moom ci jëmmi boppam mu xaraam maanaam ñaari xeeti xaraam lu xaraam ci jëmmi boppam ak lu xaraam ngir leneen lu dul jëmmi jëf ja li xaraam ngir jëmmi boppam mooy loo xam ne sharia def ko xaraamal ibtidaan ci njëlbeen duut dafa xaju ci leneen lu mel ni njaaloo sharia daf ko xaraamal ibtidaan lépp loo xam ne nag sharia daf ko xaramal li zaati yi ngir jëmmi boppam bu amee aasaar shariya du ca toftaloo luy loolu mooy képp koo xam ne ànd nag jigéen ci anam ak njaalaw attey sëy du ca toftaloo attey sëy bokk na ca ya cay toftaloo walla bokk na ci attey sëy walla bokk na ci yey toftaloo ci sëy bu ca doom juddoo ñu askanee ko baay ba bu ca doom juddoo war donn baay ba bokk na ca yey toftaloo ca sëy ya sëy di waral joxe dépense waaye ki ànd ak jigéen ci anam ak njaalaw bu ca doom juddoo du jël xaskanu baay ja bu ca doom juddoo du donn baay ba maanaam baay ba du baayam dépense warul ca baay war warul ca waa joojee sëy ak ndaw soosee ci anam ak xaram lu tax dépense war maanaa non seulement bàkkaar war na ca waaye lépp lu ca amee ci loo xam ne ci sëy la daan amee du jël àtte du jël àtte boobale beneen misaal mooy sàcc la koo xam ne dafa sàcc alal jël na alal ji mi ci moom waaye moome li ñuy tuddee tamalluk ak milku nga xam ne bu la nit jëlee jox la yaa ko moom boo jëndee la cay eh, sosoo mooy ak moom waaye nag alal ji nga jël ci jàmbur ngir ci jaaree ko ci sàcc du tax nga moom ko walla li ñuy tuddee midd su fekkee ne médd dafa xaram duut ne lekk ga rek moo xaraam waaye jaay ko yi tamit dafa xaram te buñ jaayee dara nga jënd ko lañ ca daan amee mooy ak moom daan amee mooy ak moom loo kon ja moom loo ci njaayum mbedd du wér moom tamit ci njaayum médd du wér maanaam ki la jaay am médd moom loo gim la ko moom loo ci yoonu njaay wérut yow it jënd gi nga ko jënd ndax médd la du tax nga mën ko moom liñ bëgg a wax mooy médd gannaaw dafa xaraam xaraam naa lekk xaraam naa jaay xaraam naa jënd naka noonu tamit takk koo xam ne daganut ci sharia nga takk ko moo xam yaay la moo xam mbokk la moo xam tànt la moo xam bàjjan la moo xam doomi jiitle la moo xam goro la xam nga sëy bu amee bànneexu dafay dagan sëy bu amee dépense dafay war sëy bu amee yépp yoo xam ne mënoon nga koo am ci sababu sëy su fekkee danga sëy ak koo xam ne waroo sëy ak moom doo ko mën a am no seulement danga am bàkkaar waaye ya sëy doon joxe amuloo ko yow boo sëyeeg soxna si walla sa borom kër sañ nga bànneexu ci moom mu sañ a bànneexu ci yow bu fekkee nag ka sëy ak yow du ku mën a sëy yow ci charia sañ a bànneexu nga du am bu ñu déggee daal dañuy xam ne lépp loo xam ne sama boroom xaramal na ko benn def ko xaramal ngir wëttu diine walla wëttu bakkan walla wëttum xel walla wëttu der walla wëttu alal yi ñuy tuddee ab daruratul xams lii sama borom di xaraamal yépp def ci sàmmwanteet yii xam ngeen ni medd àndut ak wér-gu-yaram xam ngeen ne sàngara àndut ak xel xam ngeen ne xaste dafay yàq der xam ngeen ne sàcc dafay jël yëfu jàmbur xam ngeen ne bokkaale dafay yàq diine yooyu yépp borom bi araamal ko looloo tax gannaaw sama borom dafa bokk ci maqaasit yi wëttu yile wala yooyooy maqaasit yi bés bu yooyu taxawee war a yàqu te du baaxee ci wala du jubbanti ko du sauver lu dul ci jottali ko lëf ci lu xaraam lu xaraam loolu fay mujj nekk lu dagan ana luy loolu xam ngeen ne lekk mbir de kat fa fa ndax baaxut ci yaram baaxut ci nàngam waaye ki nga xam ne nag toll na ci am xiif ak loru foo xam ne bu lekkut mbedd dana dee te amul lu dul mbedd kooku lekk mbedd dootut xaraamati naan sàngara dafa xaraam waaye ki fot te amul dara lu mën a naan lu ko mën a dindil fot ma amuñu lenn luñ mën a jëfandikoo lu dul sàngara boobaa sàngara ba dootul xaramati waxuma la dafay dagan waaye dafay war ngir sauver bakkan kon tudd nañ lu xaram ci zaatam ci jëmmam mooy loo xam ne moom ci boppam moo xaraam te it suñ ko jëfandikoo jeexitu sharia du ca toftaloo ñu joxe ci misaal ci sëy ak koo xam ne waroo sëy ak moom jeexitu sharia mooy lan mooy boo sëyee war nga mën a bànneexu dagan na nga bànneexu ci ka nga sëyeg waaye gannaaw ki nga sëyeg waroo sëyeg moom jeexitu sharia kiy bànneexu doo ko mën a am ak yeneen misaal yiñ joxe ñaareelu xaraam bi mooy lu xaraam li xëyri yi ngir lu dut moom mooy loo xam ne ci cosaan daganoon na waaye dafa am lum lëkkaloog lu ko yóbboo ci lu tax mu xaram dafa am lu lëkkalook moom lu tax mu xaram loolu mooy lan lu mel ni an nazaru lil marati al ajnabiyati xool jàmbur bu jigéen xam nga xool dagan na xool jàmbur bu jigéen dafay yóbbu ci bànneexu dafay yóbbu ci dafay bijji njaaloo jaay ak jënd xam nga dagan na waaye su fekkee waxtu wa ñuy julli jumaa la mu xaram ci koo xam ne jumaa war na ko mu xaraam tamit ci ku juma warut mu jaay wala mu jëndee ci ku juma war njaay ci boppam dagan na waaye bayu najis bayu najis dafa xaraam lu tax mooy war ga ca nekk ana luy loolu mooy man may jaay dara lu war a jar junne waaye ma bëgg koo jaayee lu ëpp loolu ma ne benn waay bu ma bu waaj di wax ak man rek ñëwal ne fay nga ci sept mille cinq cent junne juróomi téeméer ngir mu fay ma ñaari junne wala ngir mu yokk wala mu nangam ba ca loolu amee rek mu xaraam xam ngeen sëy eh, dagan na waaye tey bu fi sa xarit fase woon jabaram te doyalu ca waxtaan ak yow ngir nga dem takk ndaw sa fase ko ngir daganal ko sa jabar ngir daganal ko daganal ko sa xarit sëy boobu dafay mujj dafay daldi xaraam donte sëy dagan na julli lu ñu yoonal la benn muy farata wala muy naafi la waaye bu dee jullig la boo ci suuf suñu këf nit koo xam ne dafa nangu suuf si jàmbur julli ci suuf su jàmbur soo xam ne danga koo nangu ci moom daganut wala jàpp ci ndox moo xam ne dañ koo fëkk walla ñu sàcc ko daganut te jàpp kay lu ñu yoonal la waaye lëm lëkkaloo muy ndox muñ fëkk moo tax fase dagan na waaye talaaqul bida'i dafa xaram ndax yonentu sallallahu alayhi wasallam daf ko tere lii nag nga xam ne mooy alxaraam li yi ñu tudd ci misaal yi li ko wutaleeg bële mooy benn du moom moo xaraam lam lënkalookat lë lënkaloog moom moo tax ñaareel bi it mooy boroom xam-xam yi wuute nañ ci ndax ay jeexitam dana ca saxe wala du ca saxe yenn ci boroom xam-xam yi ñu ne ay jeexitam du ca saxe ñeneen ñi ne ay jeexitam dana ca saxe ànd ak nag bàkkaar am na mathalan waa ji dafa fase jabaram ci jamonoy mbërëg xam nga sa jabar sañoo koo fase su fekkee ne dafa am règle su amee règle ba règle ba jeexi tamit soo séqeek moom dara sañatoo ko fase lu dul nga xaar ba mu amati règle ba mu jeex séqook moom dara nga soo koo fase moo tax boo defee wut noonu <clears throat> tàbbi nga ci faseem bidaa léegi nag ki fase jabaram fase bidaa mooy fase na ko ci jamono ji mu mbërëgee aljumhur lépp ci boroom xam-xam yi ñu ne am na bàkkaar waaye fase ma tàbbi na am ñu ne déedéet gannaaw fase bidaa la te dañ koo tere fase ma tàbbi naka noonu sëyub koo xam ne dafay daganal dafay sëy ngir daganalal xaritam ñi ne sëy ba baax na ndax takk ga moom la ca war yëpp def nañ ko waaye da gën am bàkkaar ndax la tax mu def ko ñii ne déedéet sëy ba baaxut ndax dañ koo tere naka noonu tamit julli ci suuf suñ fëkk ñu ne julli ga moom bu ñu indee charta yàggee te war yëpp julli ga baax na bàkkaar bi nag mu ngi ci fëkk gi fëkk suuf imaam ahmad ak ñi ak moom ni déedéet julli ga baaxut naka noonu ndox muñ fëkk naka noonu naka noonu naka noonu yooyu mooy yenn ci masala yu aju ci lu xaraam ci jëmmi boppam ak lu xaraam ndax lam lëkkaloog masala ngi nii nag bu aju ci lu xaraam comme niñ leen ko diggee woon mooy tafriqul axnaafi bayna al xaraami alhaabiti min nahyin qatciyin wa baynamaa huwa haabitun bi nahyin zanniyin ñoom su fekkee ne lu xaraam al ahnaaf mooy waa kër abu xanifata ida kaana alxaraamu habata min nahyin qatciyin mithli alqur'ani wa sunnati almutawatirati fa huwa xaraam ñu ne bu fekkee ne <clears throat> liñ tere dafa saxee ci dalil qat'i yi mooy lu ñu dogu ak saxam lu mel ni alquran kenn du ca werante benn laaya lu mel ni sunna soo xam ne su am tawaatur la sunna su am tawaatur mooy lim ba ko déggee ci yonantu bi sallallahu alayhi wa na ba nga xam ne mënuñoo déggoo ci ñoom ñëpp wax ne yonantu bi sallallahu alayhi wax na ba pare te fekk demeewut noonu wala ñu juum ndax ñoom ñëpp la yonent bi wax nettali nañ ko diw nee na yonent bi nee na diw ne yonent bi nee na diw bi nee ñoom ba mu mat lim boo xam ne ñoom ñëpp mënuñoo ànd ci wax lu newut ñoom ñëpp mënuñoo ànd juum ña ko jëlee ci ñoom it mat lim boobu ña ko jëlee ci ñoom mat lim boobu ña jëlee ci moom mat lim boobu bi muy xagsi ci ñoom looloy mu tawaatir loolu nag lu néew la ci sunna al qawliya waaye bari na ci sunna fi'liya ñu ne bu fekkee ne liñ tere anam googu lañ ko tere alquran moo ko tere wala sunna su am tawaatur ñu ne loolu mooy lu xaram waaye su fekkee nag tere ga yu vanni la nahyu vanni mooy loo xam ne xadis a ko tere xadis gi wér na gaa waaye benn nit wala ñaar wala ñett ñoo ko soloo ci yonent bi sallallahu alayhi wala bu fekkee ne ña ko solo ci yonent bi bari nañ tamit ci diggante bi ba ba muy agsi ci ñun am na ci benn level boo xam ne aaxaat la fa mooy benn walla ñaar wala ñett ñoo ko soloo ca ñooña wala ñooña wala ñaar wala ñett ñoo ko soloo ci ñoom bu amee loolu rek ci chaîne u xadis bi ñoom tereeg njot maanaam ñu ñoom ci rek njort googu duñ ko jàppee lu xaraam dañ koy jàppee luñ sib sibuk xaraam maanaam luñ sib sib goo xam ne daal jege na xaraam waaye yeggul ci xaraam nag waaye li ëpp ci boroom xam-xam yi ñoom tàqalewuñu luñ araamal fekk dalil ba dalil bu ñu dogu la walla dalil ba dalil bu ñu njortu la moo tax wuutee yu mel nii su amee day tax jaam bi war a def ndànk léeg-léeg ci yoo xam ne ahadisu ahad la surtout loo xam ne e, boroom xam-xam yi dañ cee wuute xam nga ku mel ni Malik léeg-léeg dafay am problème ak ahad su fekkee ne dafa aju ci pas-pas moom ak yeneen i boroom xam-xam am na ñoo xam ne nag ku mel ni imaam Ahmad amuñ ca e, problème waaye ku nekk ci ñoom wax nga lu tax nga am ca problème ak nan ko ca amee yooyu nag dafa jar di bàyyi xel te boo xamul rek li ñuy wax lack of knowledge is not knowledge it's just lack of knowledge nga dem laajte ji mbaa nga toog déglu fasalu ahla zikri in kuntum la taalamun nañu yàlla boole defaral xam te jëfee ni nga xamee ne noonu la borom bi bëggee ak ni yonentu sallallahu alayhi wa sallam bëggee bi barakatihi sallallahu alayhi wa sallam hada wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh علي ملاذ الناس في دين ودنيا بذول دون من بالنوالي شجاع في اختياد واغتنام إلى الإسلام Travel Salum Jidda Sen Info International ak tarixa Tijaaniya in America si njiital suñu imam Mouhammad Muntaqa Sakho ñoo di may émission bu mag bii di seen diine